xamante ne ñoo ko fii vraiment ñoo xamante ne grand champion lañu nekk ay référence ci Sénégal débat bi nag kon ko gërëm ci biir ci la ñuy ñëwaat rek leen xamal ne demoon nañu bari jaaduñu aussi tamit ñu leeral askan bi ñu tax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 pour ñu ne référence la ñu doon ci làmb tey nekk nga yaakaar rek toog ñu ci dëkk bi lañ dëkk ci dëkk bi lañ bokk pël ko ñëpp bokk avant tout aussi tamit ay citoyen lañ nekk doomu réew mi di doxal réew mi bëgg réew mi bëgg Sénégal kon jaar na balaa ñuy réew mi bu amul jàmm dara du dox dara du baax te day ñaan yàlla Sénégal am jàmm ci réew bu loolu weesoo euh, fi may duggaat rek mooy làmb industrie journaliste bi da ci gis boppam mbër bi da ci gis boppam jaaykatu béréb bi da ci gis boppam ba tax na nag gis nañu président de la République Macky Sall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 danañ ma jël tey réewu Afrique yëpp réewu Afrique yëpp na te loolu nag gars yi war nañu seen bët ci xool Sénégal nag yàlla moo ko def jàmm maanaam Maam Laay fi la nekk Sëriñ Tuubaa fi la nekk Alaaji Maalik bu Kunta loolu dañ koy sante suñu borom bi nga xamante ne moom dafa bëri yoon jàmm kon jàmm jooju ko continuer jàmm jooju dafa war a sax jàmm jooju dafa war a am ci Sénégal kon ba suñu kàddu rek mooy fi ñu koy yemale euh, bu gudd waaye daal maa ngi ñaan yàlla réew mi am jàmm président Macky Sall gis nañu si tamit vraiment jéego yu muy dox ci làmb ngir gis nekk na ko ak famille làmb ndax làmb boo amee jafe-jafe wala papa feebar ancien boulaye feebar ngay jël ay matuwaay yónnee te nit du ko sax xam te am na loo xamante ne aussi tamit bu ko nit def rafet na ñu woo ko parce que ñun làmb lañu am ku jàppale làmb dañ la war ku jàppale làmb dañ la war a jàppale mooy yomb ñi ñu fi toog ñëpp ci tax moom ñu tedd làmb tax ñu am teraanga pourquoi pas tey mun a xew tey ku am ku am dara fii ba ci mën a bokk ak doomu aadama tax kon nag kuy jàppale làmb askanu làmb dañ lay jàppale parce que ñu nekk suñu bilan moom la ma ne fay saa gis nañu ñun fii xoolal namuñu dara de ñun ñëpp a ngi tedd ñun ñëpp a ngi am lu ñu bëgg ñu ngi sant yàlla kenn mënuñoo jënd tey réew kenn ku nekk am nga droit kenn ku nekk am def lu la tey Gris Bordeaux am nañu koy supporté ama seen Modou Lo boo ñaax waa booy ndax dëggee doo kenn ku nekk moom yëppam mais nañ ko ànd ci dal ak respect ak yar ak teggin